alhamdulilah rabbil alamin waliyu salihin wala udwana illa ala alzalimin wa sallallahu wa sallam ala ashraf almursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma baadu mbokk jullit yi bokk na ci doxalin yàlla yi subhaanahu wa taala doxalin suñu boroom yi nga xam ni deesu ko soppi deesu ko changé benn yoon mooy ne moom yàlla subhaanahu wa taala coobareem la xereñam la muy nattu ay jaamam yi nga xam ne ñooy woote woon ne dañ koo gëm ñooy wax ne dañ koo gëm mu leen di nattu kenn ku ci nekk kem fi sa ngëm toll nit ñu nekk dañ leen di nattu si kem fi seen ngëm toll yonente bi alayhi salaam dafa wax naan ashaddu naasi balaan al anbiyaau amthalu fal amthal ñi gën a metti ni leen yàlla di nattoo mooy ñi gën ci jaamam te mooy yonent yi ginnaaw bi lu nit ki gën leen a jege ci mbaax ak sellal nattoom di gën a metti nattu yi nag ci anam yu bari lay amee borom bi subhaanahu wa taala di wax ne yéen jullit ñi xam leen ne amul kenn kuy woote woo ngëm yàlla ci nit ñi lu dul ne yàlla dina ko natt ngir feeñal dëggoom ak ñàkk dëggoom natt yooyu nag ci anam yu bari lay feeñee yàlla subhaanahu wa taala xamal nañu ne doxalinam la ci ñi ñu jiitu woon naka noonu tamit doxalinam la boo xam du soppeeku ci xeet bi nga xam ne mooy xeetu lislaam yàlla dafay nattu ci kontaante di nattu ci naqar di nattu ci lu neex di nattu ci lu naqari di nattu ci lu metti di nattu ci lu yomb loolu yépp ay nattoom la subhaanahu wa taala yàlla subhaanahu wa taala di nattu itam ci noon yi nga xam ne dina ko jël jóor ko ci kaw jullit ni ñu leen di noon ci kaw dëgg ji ñu nekk ak mbaax bi ñu nekk jaamaarloo bi jullit bi di jaamaarloo ak noon yooyu nga xam ne ñoo koy gàllankoor ci yoonu yàlla mu bëgg a soobu loolu xamal ne natt yu rëy mi ngi ci yu yàlla di natt ay jaamam waaye boo ko seetloo di nga gis ni natt yépp dafay dellu ci ñaari fitna ci ñaari bunt benn bi mooy yu yi nga xam ne mooy yàq pas-pas yu jullit bi ak bànneex yi nga xam ne mooy xeeftal jullit bi ay ñaawteef di dox diggam ak topp yàlla ak jaamu yàlla koo xamante ne bii bu yu lënt ñëwee nga jéem koo fekk sa kémtalaay kàttan ak dëgg ji nga xam ne yàlla baaxee na la nga xam ko ba sa ngëm yàlla dëgër loolu ak dëggu la ci yow loolu luy wane sax wéru ngëm wéru ngëm yàlla bu ay bànneex jógee ñu ciy woote ak di ko yëngal ci nit ñi nga jéem koo fekk sa kémtalaay kattan ak li nga xamante ni yàlla baaxee na ko ci dëgg ji nga xam sa digganteeg sa boroom ngir loolu dëgëral sa ngëm yàlla loolu dafay wane ak dëggu ci ngëm yàllaam dafay wane tamit wéru ngëm yàlla waaye nag bu fekkente ni bu yi ñuy lënt yi bu yu lënt yi ñëwee ñu woote ci wala yu yi daal di tasaaroo ci nit ñi commencé jeexital ci nit ki di jeexital ci xolam di jeexital ci ngëm yàlla mu commencé commencé nekk di dengi dengee ka sikki sàkka loola day wane ñàkk dëggu bu nekk ci xolu jaam bi ci ngëm yàlla boobu naka noonu bu yu bànneex yi jógee fitnay bànneex yi jógee ñu koy ñu ci xërtal ci woote mu jeexital ci xolu nit ki mu commencé koo tàqale jaamu yàlla di ko yóbbu ci ay moy yàlla di ko def loo ay ñaawteef loolu tamit day wane ñàkk dëggu ci ngëm yàlla boobu kon benn bu ci nekk ñaari buntu yooyu ay fitna yu rëy mi ngi ci yoo xam ne yàlla da ci nattu ay jaamam ci ngëm gi ñuy wax ne gëm nañ ko ko moom yàlla subhanahu wa taala nit ñi nag tolloowuñu ci taxawaay yooyu ci taxawaay yooyu mooy ci ñaari buntu fitna yooyu nit ñi dañ cee ëppalante dañ cee sutante borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax ne ndax da ngeen a foog ne di am ak texe am li nga xam ne mooy seen objectif final di seen jubluwaay bu mag bi nga xam ne moom ngeen di sàkku te mooy lu dul la yàlla subhanahu wa taala dina leen natt fii ci àdduna ci métit ak jafe-jafe yi nga xam ne yàlla dina leen ci jaarale ak xoqatal ak bundu xatal yi nga xam ne dinañ leen ko def loolu yàlla nee na faw ngeen jaar ci laata ngeen di am ak sama fay ndax ñi leen jiitu woon mosoon nañ lu mel noonu ci ngëm yàlla gi ñu gëmoon kon yàlla subhanahu wa moom la soog muy coobareem képp ku ko gëm mu nattu la ba gis fan la la yàlla ak lan la la yàlla jaral ci coono ak ci def ay sacrifice loolu dafa neex yàlla subhanahu wa taala mu gis jaamam di muñ ci kaw coono boobu ñu koy fitnaal di ko nattu di ko bundu xatal di ko xor ñoññal muy muñ ci kaw loolu te dara taxal lu dul yàlla yàlla dafa bëgg loolu te loolu lu bari lay jural jaam bi ci njariñ lu bari lay yokk jaam bi ca yàlla subhanahu wa taala borom bi subhanahu wa taala nee na ñi leen jiitu woon doon nañ leen xor ñaññal di leen sonal di leen fitnaal ba ñuy wax seen yonente yi ñu àndaloon nañ leen kañ la kañ la ndimbalu yàlla di ñëw xam nga nit bu demee ba naan kañ la ndimbalu yàlla di ñëw mi ngi mel na koo xamante ni dafa dem ba xamatul fu mu jëm man kañ la ndimbal yàlla di ñëw mata nasrullah xata yaqula rasul walladina amanu maahu mata nasrullah yàlla nee na inna ala inna nasrallahi qarib ndimbalu yàlla lu jege la waaye doomu aadama dafa yàkkamte ay mbiram doomu aadama day dëgg buñ ko tooñee tey mu saafarawu tey mu faju tey yàlla du doxalee noonu ndax li ci ëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy teg xoqatal ak bunnu xatal ak fitna yooyu ci kaw jaami yàlla yi yàlla da leen di jëy jëy leen di jëy mooy dafa mel ne da leen di muy gën di bew moo tax moom muy subhaanahu wa mooy wax ne saa bu nammee alak ay nit seeni kàngam yàlla da leen di beewloo seeni kàngaam yu mag ya yàlla subhaanahu wa taala da leen di moo tax muy wax amar naa mutara fiiha fa fasaqu fiiha yàlla subhaanahu wa taala li mu wax mooy saa boo xamante ni nam mën a alak aw nit ña nga xamante ni bi ñoom ñooy ñi ëpp jéggi dayoo ci ñoom ñoom lay xërtal ci ñuy def ay ñaawteef ci yenn riwaay daf ne ammarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa xaqa alayha alqawlu fa dammarnaha tadmira yenn ci riwaayaat yi dafa wax ne am mar naa mooy dafay jiital ñi nga xam ne ñoo gën a jéggi dayoo ci ñoom jiital leen jox leen kiliftéef yàlla bu nammee alak aw nit ñu gën a jéggi dayoo ci ñoom lay jox seen kiliftéef bu ko defee ñu commencé def ay ñaawteef fu ñaawteef yam rek ñu weesu lu ne koy def ànd ak mbewte yàlla jay leen bu ko defee yàlla gën leen mën a alak yàlla gën leen mën a mbugal nasalullah salaamata wal aafiya moom borom bi subhanahu wa taala mu nekk coobareem ne dina nattu ay jaamam nattu leen ci ñetti ñeenti taxawaay taxawaay bu njëkk bi mooy taxawaayu xam gi ñu war a xam lu baax ba bañ koo jaawatle ak lenn loo xamante ni du lu jóge ci seen borom di dëgg di mbaax loo xamante ni lu baax la bañ a jaxasoo ci seeni bët ak lu safaanook mbaax loo xam ne dëgg la leer ci jullit bi ba mu xam ko bañ koo jaawale ak loo xam ne du dëgg faw jullit bi yittewoo jéem a fexe jàng ba xàmmee lu baax ràññet la ko ak li nga xamante ni lu safaanook lu baax la ndax li yàq diine nit ñi li ci ëpp ci foofu la tàmbalee muy jéego bu njëkk boobu ñàkk a mën a xàmmee lu baax ci lu baaxul yàlla dafa bëgg ñun ñu xàmmee lu baax wa man yattaqillaahi ja'al lahu Euh, ni ko borom bi subhanahu wa taala waxeeti mooy koo xamante ni ragal na yàlla in tattaqullaha yaj'al lakum furqaana yéen ñi nga xamante ni yéen a gëm saa bu ngeen ragalee yàlla yàlla jox leen furqaan furqaan boobu borom xam dañuy wax ne mooy li nga xam ne moom mooy nekk ci jullit bi mu mun cee ràññatle lu baax ak loo xamante ni lu baaxul in tattaqullaha yaj'al lakum furqaana kon xam-xam boobu mooy maqaama bu njëkk bi ñaareelu maqaama bi ci topp mooy jëf lu baax loolu nga xam xam bu wér boobu nga xam mu nekk xam-xamu alquran ak sunna bi nga xam ne ci la yàlla di jëlee jullit ñi ci ay lëndëm allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min azulumati ila nuur jële leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer xam-xam boobu ginnaaw boo ko jullit bi xamee na xam ne du am njariñ li fekk jariñoo ko fokk mu jariñu ci moom ci boppam jëfe ko bu fekkente ne góorgóorlu na ci jariñoo ko naam ci lay soog a jàll ci ñetteelu maqaama bi ñetteelu maqaam bi mooy woote jëmale ci ñetteelu taxawaay bi mooy woote jëmale ci woote jëmale ci naka noonu tamit jëf ji mu nekk loo xamante ne lu sell la sa digganteeg sa boroom ngir li ngay jëfe ci lu baax li ngay jëfe ci xam-xam nekk loo xam dina la jariñ ñetteel bi mooy bi xamante ne bi moom daanaka moo ñu gën a yitteel ci wax ji ndax mooy woote jëmale ci yàlla subhanahu wa taala ñeenteel bi mooy muñ gi ci nit ki di muñ muñ gi nga xamante nit ki dina ko muñ ci kaw ñett yi weesu woon rawatina ci ñetteel bi ñetteel bi mooy woote bi nit ki di woote yàlla subhanahu wa taala euh, ëmb ñeenti mbir yooyu dajale ko ci wax ji mu wax ne wal asri inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilxaq doomu aadama yépp waat naa ci jamono ji xam ne waat naa ci temps nga xam ne ci la ki di dund di ci fàggu lu ko texe lu ko tax a texe ak lu ko tax a texee di jamono jooju nga xam ne ci la nit di fàggoo lu ko tax a texe ak lu ko tax a texee di yàlla waat ci daal di wax ne nit ñi li ñuy def lépp seenu texee ja la leen di jural nit ñëpp ñu ngi ci loo xamante ne ak texee da leen di jural ëllëg lu dul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla am ngëm gu wér am pas-pas bu wér loolu mooy xam-xam bi jiitu ci nit ki mu fas ci xolam loo xamante ne lu leer la loo xamante ne dëgg la loo xam ne pas-pas bu wér la ginnaaw ba ñu koy jëfe di jëf-jëf yoo xamante ne jëf yu baax la ginnaaw ba ñuy diglante li nga xam ne mooy dëgg di diglante muñ ñeenti maqaamaat yooyu yàlla subhanahu wa ta'ala ciy nattu ab jaamam ñetteelu maqaama bi nga xamante ne bi mooy woote di jëmale ci yàlla subhanahu wa taala moom yàlla la soob ne képp ku yaa képp ku mës a jóg taxaw ci taxawaay boobu muy taxawaayu woo nit ñi ci dëgg woo nit ñi ci yàlla woo leen ci xam-xam woo leen ci jëf joo xam ne jëf ju baax la képp ku mës a jóg di taxaw ci loolu yàlla nattu la bokk na ci nattu yi gën a tar yi yàlla di nattoo ñiy taxaw ci liggéey bu mel noonu mooy loraange yi nga xam ne dina jóge ci nit ñi jëm ci ci yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog bi nga xamante ni mbir dikkal na ko mu jaaxal ko mooy bi mu gisee jibril ci xaaru xiraa mu tiit ci boppam jaaxle ci boppam ñëw ci xadija radiyallahu anha di tiit ci boppam di di ko wax njàqareem ak tiitam xadija daf koo defal daal di ànd ak moom yóbbu ko ci waraqa ci baayam boobu di waraqa ibn nawfal bi ko waraqa dégloo mu wax ba noppi daf koo dalal xamal ne ko li la dikkal mooy li yàlla daan yebal muy dikkal yonent yàlla Muusa ab yonent nga ba yàlla di yónni ci jaam ñi waaye nag su ma su ma fekke woon bis bi la saw xeet di génne dinaa la jàppale yonent bi alayhi salatu loolu jaaxal ko ci wax ji lool li mu ko wax ne ko su ma fekkee woon bis bi la bis bi saw xeet di génne te boobu loolu amagul loolu xewagul kenn génneegu ko mu ne ko ma ndax sama xeet dañ may génne mu ne ko ahañ kay dinañ la génne amul ku mës a indi njub ak dëgg ju mel ne ji nga indi lu dul aw xeetam dinañ ko génne ci biti loola kon doxalinu yàlla la waraqa dund ko gisagu ko waaye xam na ko ci xam-xam bi mu jàng ci yonant yi jàlloon ne kon képp ku mës a jug nekk ci aw nit di fa wote ci njub di wote ci mbaax di wote ci yàlla mënoo mucc ci seen loraange fokk mu am ñu jóg di la bunnu xatal ak di la xor ñañal moo tax yàlla subhanahu wa taala wax yonentam bi alayhi salatu wasalaam ne ko dee su la wax loo xam ne waxuñu ko woon yonent yi la jiitu li luñ la wax rek xamal ne am na yonent yu jiitu woon yoo xam ne wax nañ leen ko wala ñu wax leen lu ko raw loola kon dina tax nit ki bu bàyyee ci loolu xel mu gën a muñ gën a mën a muñ gën a dëgëral xolam gën a dëgëral xelam natt boobu yàlla di natt ñi nga xamante ne ñooy jóg di jéem a taxaw ci liggéey boobu nga xam ne mooy liggéeyu yonant yi mooy di woote di jëmale ci yàlla nattu bi leen yàlla di nattu ay njariñ yu bari mi ngi ca lu bari la ci yàlla subhanahu wa namm ci ay njariñ yoo xam ne léeg-léeg nit ñi duñ ci bàyyi xel mu bokk ci mooy ne li ci njëkk mooy yàlla feeñal gi muy feeñal ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy sax di dëgëral seen taxawaay ci dëgg bu natt yi jibee coow li jib wax ji jib xoqatal yi kan mooy continuer di di sax ci dëgg ak kan mooy dellu ginnaaw ndax xoqatal yeeg wax ji wax ju wax ju ñaaw jeeg wax ju naqari ji eh, ndax di nga ko mën a dékku yàlla jaral la nga muñ loolu yépp walla ndax bu coow li jibee rek nga daal di dellu ginnaaw ci mbaax dellu ginnaaw ci siraatul mustaqim bu bokkaat ci itam yàlla subhaanahu wa taala ci loolu lay feeñalee nag dëgg-dëgg nit ñi ndax bu nit jógee di woote di woote di jëmale ci yoonu yàlla di woote di jëmale ci alxuraan ak sunna leneen la sa xaalis liggéeyloowu la bayloowu la toolam bayloowu la toolu baayam daa bëgg ci yow nga nekk jaamu yàlla buy jaamu yàlla subhaanahu wa taala nangul yàlla di roy yonentam bi alayhi salaatu wasalaam sàkkuwul ci yow leneen lu dul loolu boo tënkoo ci loolu bu la gisatul ba keroog yowmal qiyaama sax loolu doy na ko léegi bu nit jógee di woote ci loolu aw nit mer ci loolu jug di ko di ko di ko di ko noonu loolu dina wane kenn ku nekk kon mbiram loolu rek doy na ci wane kenn ku nekk lan mooy mbiram ndax bu nooneel gu mel noonu amee lan moo ko war a waral te bu kàddu yi jibee wax yi jib di nga ci déggee lu tax nga xam kenn ku nekk fan la féete kon loolu xikmawu yàlla mi ngi ci xereñuk yàlla mu ngi ciy feeñ bu baax a baax mu bokkat ci itam ne yàlla bu bëggee dëgëral dëgg daf koy tàggatal ay noon yu koy xeex dëgg daanaka fu mu amee doole rek li ci ëpp daa am ñu jug bëgg koo gàllankoor ndax dëgg am na kattan gu ci nekk ak force bu ci nekk boo xam ni ci xelu nit ñi ndax yonente bi alayhi salaam xoola ba mu nekkee biir màkka daanaka mbooloo moom fa yoroon mbooloo mu néew la mu ñuy wàññi ak ay loxoy baaraam ñu nekk ñu néew doole ñu ko daan wax naan ko ñi la topp mooy ñi gën a doye di ci ñun comme liñ doon wax yonent yi jur maa naraaka tabaaka illa alladina hum aradiluna baadiya ray ñi gën a doye di ci ñun lañ gis ñu leen di topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay xale ñoo ko doon topp ak ay jaam ay Bilaal ak ay Ammar ay Ali ibn Abi Talib Suhayb ñu mel noonu ñoo ko doon topp ñu koy xeebee loolu. kàngaami Quraysh yi bu ñu ko musaan romb dañ naan ko ñi nga bëgg ñuy ñëw di toog ak ñoom ñii ngay toogal nii moom nga bëgg ñuy toog ak ñoom moo tax yàlla nag wala tuturidi alladina yadcuuna rabbahum bilgadaati wal ashiyi yuriduuna wajha wala taadu aynaka anhum turidu zinata alxayaati dunia ñooñu ngay toogal ñu leen di xeeb yow bu leen xeeb toog gi ngay toog ak ñoom na nga ci continuer te say bët bul ko teggi ci ñoom di xool ñoom ñee àdduna ja ñu nekk ndax euh, li cëpp bu nit ki nekkul ci dëgg lim lay bëgg a waree ak naxee la ko mooy mbooloo moom yor ak alal jam yor ak yooyu la ci yooyu lay mujj di mottali ko waaye ay argument ak dëgg ji nga xam ne moom moo soxal yàlla ci nit ñi loolu du ñu wax ci loolu yitteelu leen moo tax yàlla subhanahu wa taala teel a alerte yonent bi alayhi salatu salaam ci loolu ne ko ñii ñu lay xeebal yàlla moom xeebu leen kon nanga nga toog ak ñoom gis nga euh, Abdullahi ibn Ummi Maktum nga xam ne ab silmaxa la ba mu ko dikkee lay fekk mu toog ak ay kàngaam ci ci yéefar yi ñooñu xaw a mer ci loola ndax ab euh, silmaxa la su ñëw bëgg mbaax bëgg lislaam di laajte ñëw di wax ci kaw di laajte di laaj yonent bi alayhi salatu wasalam yonent bi lool xaw ko metti ba mu ñëggal kanamam yàlla wàcce alquran di ko di ko yedd ci lool abasa wa tawalla an jaahu al ama ma nga ñëggal kanam ga ndax silmaxa gaa dikkal na ko yàlla ne ña nga xamante ne bi soxlaaluñ la dara ci sa njub gi nga nekk ngay yittewoo seen mbir jaamu yàlla bi nga xam ne xëy na suufe na ci li feeñ ci kaw waaye moom mi ngi ñëw bëgg lu baax ngay nga koy dummooyu ak di ko tànqamlu yàlla xaarul loolu ci yow mi liggéey ci yoonu yàlla yow mi liggéey ci yoonu yàlla li la war a yitteel mooy jariñ jaam ñi ñi bëggul baax ci baax ci ñoom ak njub ci ñoom nga jàppalante ak ñoom ci loola ki am àdduna ak li ci biiram te dëgg yitteelu ko yàlla yitteelu ko nga bàyyi ko boppam kon ci loolu yàlla subhaanahu wa taala dina ci leeralee dëgg leeral ci itam li safaanoo ak dëgg ndax dëgg loo ko gën di xeex muy gën di am kàttan di gën di am doole yonent bi alayhi salaam dañ ko daanaka dañ ko daan jaboliser ci biir màkka ku ñëw rek ñu ne la am na waaju fi nekk di woote ko déglu day saaga suñuy maam suñu li ñu nekk diine ji ñu nekk mu koy xasaka ŋàññi lu bon lu ne mi ngi koy wax suñu maam yi kon kooku jarul déglu loolu lañ ko daan waxal tel la alerte ne la bul ko déglu as xale as ngone la ñuy wax genre baatu xeebeel yooyu la ñuy faral di jëfandikoo moo tax ku jàng histoire yonentu bi alayhi salaatu salaam xam ne léeg-léeg histoire dafay répété wu allahu akbar mu bokkaat ci itam yi nga xam ne mën nañ ko cee jële jële ci njariñ mooy ne yàlla dina ci xale xoli ay jaamam yi ko gëm léeg-léeg jafe-jafe yooyu bu ci bu ci nit ki nekkee day yokk ngëm yàllaam day yokk yaqiinam rawatina bu nit ki xamee ne lii mu nekk dëgg la te bunnu xataluñu ko lu dul ne dafa nekk ci dëgg ñu ko ciy tumuraankeel di ko ci xor ñoñal loolu dafay gën a may nit ki jom mu gën a teg tànkam gën a góorgóorlu ci dëgg googu mu nekk mu bokkaat ci itam li nga xam ne bokkaat na ci ay njariñ mooy xërtal gi muy xërtal ñu nekk ci dëgg puus leen nag pour seen dëgg ji ñu nekk ñu dimbale ko ndax nekk ci dëgg gis ñu koy néewal doole da da ngay daal di nag am loo yëg ci sa xol yëg ne war ngaa dimbali dëgg war ngaa jàppale ñu nekk ci dëgg bu fekkee am nga yëqin ci ne li nga nekk dëgg la mu bokkaat ci itam ne yàlla subhaanahu wa taala dina ci feeñalee mbiram ay doxalinam ak ay mëninam ndax yàllaa mën a fekk mbooloo mu néew mu tuuti lool kam min fiatin qalilatin galabat fiatan kathiratan bi idnillah mbooloo mu néew lool ñu koy xor ñooña ko tuutal mu nekk ci dëgg yàlla dimbali leen ci doxalinam ci anam boo xam ni weesu na xalaatu doomu aadama ba ñu mujj am ndam ci ña leen doon néewal doole te loolu ku jàng tamit alquran xool yàlla doxalinam ak xeet yi jiitu woon ak yonent yi fi jaaroon gis ci loo xamante ne bi lu wóor la borom bi subhaanahu wa di ñu wax di wax jullit yi naan leen moo ndax dangeen a foog ne di ngeen dugg aljanna te yàlla subhaanahu wa taala xamagul ci yéen yàlla subhaanahu xamagul yàlla waneegul yàlla nattoogu leen lu tax mu gis ci yéen ñi nga xam ne ñoom ñooy ñiy góorgóorlu ak a muñ ci kaw dëgg ak ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo ko deful yàlla subhanahu wa kon xam ci yéen ci ni mu koy xamee mooy nattu gi mu leen di nattu ak jafe-jafe yi mu leen di jaaral ñi nga xamante ni ci yéen ñoom ñooy góor góorlu ngir dimbali dëgg ngir jàppale diine ak a muñ ci kaw loolu ak ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo def safaanu loolu mu bokk ci jumtuwaay ak doxalin yi nga xam ni mooy gën a jàppale jullit bi jàppale jaam bi ba nattu yi yàlla di nattu ci kaw dëgg ci kaw mbaax ak ci kaw woote jëmale ci mbaax yàlla defal ko ci ndam mu am ci ak mucc am ci ngañaay bokk na ci jumtuwaay yooyu ak doxalin yooyu mooy yittewoo dëgg ak leeral dëgg te moytandiku ak dum mooyu ña nga xamante ni bi ñoom ñooy gàllankoor dëgg ak euh, euh, nu mu tuddati safaanoo ak dëgg ñi nga xamante ni seen ñàkk xam wala seen xamadi ndax léeg-léeg dëgg ki koy gàllankoor du ki xamul ki xam ak ki xamul léeg-léeg li ci ëpp du nekk problème yow mi jug di woote ci mbaax teg ko ci xam-xam ki xamul te bëgg lu baax xëy na ñu influencé ko tax mu lay noonoo mais bu fekkee dem na ba xam réalité bi nu mu demee li ci ëpp di nga gis ne ndakate ku ku ku ku ku ku la bëggal lu baax la ku bëgg lu baax la xëy na da koo xamul woon. ki xam tamit noonu mais léeg-léeg ki xamadi moom moo lay sonal ki nga xamante ne ñàkk xamam dafa nekk ñàkk xam boo xam ne bu ñaaw la. kooku léeg-léeg moom mooy sonal mooy gàllankoor ñi nga xam ne ñooy woote di jëmale ci dëgg kon ñooñu moytu leen bañ leen a toppatoo bañ leen yittewoo seen mbir ignorer leen léeg-léeg da ciy baax mooy continuer ci mbaax gi nga nekk ak dëgg ji nga nekk di ci woo nit ñi di leeral lislaam di sukkandiku ci alxuraan yàlla ji ak sunna yonent bi alayhi salatu wasalaam ku yàlla baaxee loolu doy la nga doyloo ko wommatu tënku ci siraatal mustaqim doyloo sa borom ak njàngaleb yonentam loolu doy la nga gëm ne loolu boo ca faatoo yàlla mën na laa defal ak texe ndax loolu mooy yoonu texe gi yàlla subhanahu wa taala toppaloo jullit yi wa raditu lakum al islaama diinan gi yàlla waxoon wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu al islaam la yàlla wax te loolu mooy lislaam mooy alxuraan yàlla ji ak sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu jullit doyloo loolu wax dëgg yàlla waree su koo ŋàññi wala ñu koy xas benn yoon ci ci ci kaw loolu mu doyloo waaye nag malheureusement tey boo doyloo alxuraanu yàlla ji ak sunna yonentu bi alayhi salatu wasallam di ci woote ay nit di la ŋàññ ak di la taxe lu nekk ci kaw loolu nga doyloo parce que dolliloo si nangam te nangam jooj ñu la ciy dolliloo yàlla sant loo ko yonentu bi sant loo ko sallallahu alayhi wa sallam kon bàyyi werante bi bàyyi xuloo bi moytundiku nit ñooñu continuer ci lu baax ak di ca di ko jàngale ci anam boo xamante ne bu leer la yàlla di ci jariñ ay jaamam loolu léeg-léeg du ci mën a ñàkk ndax loolu la yàlla digaloon yonente bi alayhi salatu wasalam ci yenn ci ay tolluwaayam daf na ko fasda bi ma tu'maru wa arid anil mushrikin ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñoom joxuñu yàlla dayoom joxuñu yàlla àqam di wutal yàlla ay ndend di wutal yàlla ñu ngi koy gam-gamleel ak ñu ñu koy nattableel cër bi ñu war a jox yàlla jox nañ ko ñeneen wala ay leneen ci mbindeef fii mooy al mushrikin ñooña nang leen dëddu nga moytu leen yow te yow nga yittewoo dëgg ci nga xam ne moom la la yàlla jox ñi fiy nekk nag di la ak di la a tuutal ak di jéem a soofantal sa boote ñu bàyyi leen ak yàlla inna kafaynaaka almustahziin bàyyi leen ak yàlla kon léeg-léeg ak yàlla du ci mën a ñàkk ndax boo duggee ci rapport de force bi ci mbir mi mën naa nekk loo xam ne luy gàllankoor sa woote la yonente bi alayhi salatu wasalaam bis bi nga xamante ni ci yow mu xunayn tijji na màkka dem fële ca taif jaamaarloo fa ak ay ay ay ay ay ay xeet ci arab yi lu mel ne hawazin ba gañe leen loo xam ne ngañaay la ci alal alal ji da koo séddale ci jullit ñi danañ xool ñi nga xam ne soxla na gën leen a dëgëral ci lislaam mu jox leen lu bari pour gën leen a sawarloo ci lislaam am jenn waay ju fa taxawoon gis ko mu séddale alal ji am ñu mu jox lu ëpp mu ne seddale bi de ki ko def namm ci yàlla ki ko def maandowu ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne kan mooy maandooti bu yàllaa ko bu yonentam maanduwul waaye nag yàlla na yàlla jéggal yàlla na yàlla yërëm Muusa ndax lor nañ ko ci woote bi mu doon woote ci yàlla lu ëpp liñ ma lor mu muñ loolu li muy tekki mooy képp ku jug di woote ci yoonu mbaax doo mucc ci làmmiñu nit ñi doo mucc ci seenuk loraange làmmiñu nit ñi nit mu nit doomu aadama buy yëttewoo lu baax ak di ca woote doo ca mucc mukk foog ñu lor la foog nga gis koo xam ni euh, nit ki du àgg ci mbaax fu tax ñu jomb koo saaga wala ñu wax ko lu bon mu bokkaat ci yoon yooyu tamit ba léegi ñi nga xam ne nit mën na caa sóobu yàlla defal ko tawfiq mu am réussite am ak mucc ci natt yooyu yàlla subhanahu wa taala di nattu ci taxawaay yooyu mooy nag tënku ci xereñ tënku ci sages ak xikma li ngay def nga fexe ba def ko ci anam bi nga ko war a defee def ko ci rafet ba képp ku maandu ànd ak xel mu rafet bu la déggee ngay wax wala mu gis la ngay def mu xam ne kii li muy def noonu la li muy wax noonu la tooñul kenn saagawul kenn provoqué wul kenn ndax loolu la yàlla waxoon wala tasubbu alladina yaduuna min duni illahi fa yasubbu allaha adwan bi gayri ilm bu leen di yëjji ak a ŋàññi li nga xamante ni yéefar yi li nga xam ne jaamikati xërëm yi jamono jooju ñoom ñi ngi dund ci màkk nekk ak ñoo xam ne ay xërëm la ñuy jaamu di leen sujjootal ak jaamu yàlla ne loola màgg ci seen i bët ñoom yéen bu leen dem di leen attaqué di leen saaga ndax bu ngeen saagaa loolu dina leen puus ñoom ci seenuk ñàkk xam ñuy jël ay ñaawteef di ko jëmale ci yàlla te loolu yàqute bu rëy la kon xool bul xool yow li ngay def rek ne lu légitime la loo war a mën a def la mais del xool tamit résultat yi muy jur del xool li ciy juddoo di ci bàyyi xel ba tax ngay tënku ci xikma di def li nga war a def ci anam bi nga ko war a defee sa kéemtalaay kàttan mooy tondiku tamit ay provocation ndax léeg-léeg yenn wax yi ngay dégg ak yenn mbir yi ngay dégg ay provocation la yoo xam ne dañuy bëgg nga wax wala nga def ba ñu exploiter sa wax jooju génne ko ci contexte bi nga xam ne moo taxoon nga wax ko daal di koy yóbbu da nga xërtal ci nit ñi ci sa kaw pour ñu lor la wala pour ñu noonu la ndax loolu yépp lañ ci jublu mooy dañuy jéem a fexe rek wax loolu wax ju ñaaw boo ko waxee laa yuxibu llahu aljahra bi suui min alqawli illa man zulim yàlla bëggul kuy yëkkati wax ju ñaaw lu dul ku ñu tooñ mooy bu ñu tooñ la nga delloo waaye kooku dalay tooñ boo delloo tooñ bi mu jël tooñ ba nëbb ko jël delloo gi daal di koy wan ci kanam nit ñi ne yow da ngaa tooñ ndax dangaa wax nangam ak sàngam te waxul nit ñi lu tax nga wax ko ak foo ko waxee ak noo ko waxee waaw di jël ci say wax coqati ci lu ko neex ngir yàq sa daawa kon pour moytundiku yooyu moytundiku provocation yi léeg-léeg da ciy baax bañ di gaaw a demee ay sentiment dégg ku def benn vidéo posté ko ci YouTube bi wala ci réseaux sociaux yi wala benn ojo rek nga daal di demee ay sentiment bëgg kut ko kut tontu ko wala réglé ko daawa bu nekk ak niveau am yàlla yonent bi alayhi salaam daf la waxoon ne la booy soppi ñaawteef boo mënee dindil ak sa loxo boo mënul waxal ak sa làmmiñ boo mënul naqarul ak sa xol kon ay étape la étape bu ci nekk selon lim lay jural ci njariñ ci sa woote bi ngay woote nga koy natt mais doo ko natt rek ci sa mer woo ci mer wala yu mel noonu laysa shadidu bi sur'a innama shadidu alladi yamliku nafsahu inda alghadab ki tar dëgg nekk jàmbaar du koo xam ne bu meree rek bëgg a faj ci saa saasi bëgg a salfaañe nit ñi dal di lijjanti li nga xam ne moo ko merloo waaye ki nga xam ne mooy jàmbaar dëgg mooy kuy mën a am maîtrise ci boppam ba meram du ko pousse ci muy déborder di def ay darapage kon yooyu tamit ndiku ko moytundiku provocation yi continuer ci say principe continuer ci sa daawa ci sa woote ci yoonu yàlla selon ni nga ko déggee xam alxuraan ak sunna jëfe ko ci yar ak teggin woo ci nit ñi ci yar ak teggiñ mooy tundiku provocation yi ndax coow li yépp xam nañ li koy faral di waral mooy bu ñu gisee jaamu yàlla yi di nangu woote yàlla di wuyu woote yàlla di woote alxuraan ak sunna am na ñoo xam ne loolu daf leen di menacer menacer seen i intérêt deful seen affaire daf leen di tiitloo bu ko defee ñuy tëb di dal di provoquer waateeka saaga waateek lu ne ñu koy def waaye léeg-léeg tànqam lu leen continuer ci mbaax bi nga nekk tey dimbali ko yàlla yàlla moom dina faj mbir yi dina ko lijjanti lépp ci koo xamante ne yàlla may na la gudd fan insha allahu taala yàlla nañ yàlla taxaw yàlla nañ yàlla dëgëral yàlla nañ yàlla saxal ci lu baax yàlla nañ yàlla sàmm yàlla nañ yàlla fegal pexew bépp noonu ak fexewu yàqukat bépp ya bépp yàqkat yàlla na yàlla taxaw wootewu alxuraan ak sunna yàlla na ko yàlla sàmm fegal ko lépp loo xam ne ñu ngi koy nasaka nocci ngir lor ko wala gàllankoor ko ak gàllankoor ña ca nekk allahuma aslix lana diinana alladi huwa ismatu amrina wa aslix lana dunyaana allati fiha maashuna wa aslix lana axiratana allati ilayha maaduna wa jacal alxayaata ziyaadatan lana min kulli xayr والموت راحة لنا من كل شر اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إن إنك أنت التواب الرحيم